ข้าวครับ nyuk nyon ko mare lama ko te mo nyuk ko mare wala kita mo te mo Yeah. Bekkat edelim. Bekkat edelim.

Sul sulla finestra, sulla finestra.

kon leen ma maag sëñ bi kon leen ma maag sëñ bi kon leen ma maag sëñ bi kon leen ma maag sëñ bi babo Thank you.

Tim. Balo, balo ni kami temu. Dah nak tu yile tu, dah nak tu buat tu yile. Nah, nyung nyung di dalam apa ni? Bibip, bibip, bibip, bibip, bibip.

waaw Fane. waaw jaajëf waaw Fane Dieng daa am lu ñu jaaxal de. lu ñu jaaxal lool. Eh, dañoo gis waaru fii nii nga nga si lool. waaw waaw ah, loolu de liggéey suñu tubaab la rek. Eh. liggéey suñu tubaab amul taale eh. ko moom. ñun dañ kon dañuy fii nga xam ne gis nga ñu fi tëdd. waaw seenu yaa ko taxul ñu tëdd. njàmbaar taxul ñu desut. kon dañ ko war a bay te ñaanal leen mhm. sa borom doon seen leer gas mhm. ñu seen barke amiin fa njëg ci la nekk nag loolu waral lii rek waaw faal est-ce que cey fa rahmatullahi taala barakatuh ñoo ngi leen di nuyu lu gën bari di leen sant di leen ñu di altine bi nga xam ajjuma lañ tàmbali woon bare mi tey jii ñoo ngi ci barabu dëggukaay bii nga xam ni mooy bàq ya te bàq ya ñun ñëpp kenn ku nekk am nga fi ab cër kon liggéey la boo xam ne ñi ñoo ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ mboolem kuñ yaakaar ku yaakaar que sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall liggéey la nag boo xam ne nii kenn ku ci nekk war ngaa def sa yitte ci waxtu woo déggee ndigal góorgóorlu ci bu baax daal dëkk bi ñu doon seetal lool seetal nañ dëkk bi tey nag ñoo ngi Bakhya di ko liggéey bëgg mu set Bakhya nag day barab boo xam ne képp ku di taalibe sëpp cëre ngi ci biir loola kon nag ñoo ngi soññ suñu bopp di soññi taalibe yëpp rawatina mboolem ku yaakaar kër suñ moo taala ak kër sëñ Bachir Fall bu mag na rawatina njabootu kër sëñ Baara Ndiaye fépp waaye mën a nekk rek ñoo ngi lay soññ nga fas yéen nekk ci liggéey bi te góor góorlu ci bu baax liggéey bi nag liñ ciy def mooy dabu ngërëm mooy sëñ Touba ak si Yàlla Fall li ñuy fas yéenee def nag mooy taalibe yi xam nañ ne am nañu pësteef ndax ku ñëw li sa jëf a ngi ñëw kon jëf yi nan fas yéene góorgóorlu bu baax a baax rek di diglu ndigal tey fas yéene jëfe ndigal bu baax a baax liggéey bi nag yaakaar nañ ne rafet ni fii nu dugg tey jii de bàqee fas nañu yéene ba li ñu fee jógee dañ koo seetal kon ñoo ngi soññi fu waaye mën a nekk te mën te mën a ñëw nëgga dikk teew si jërë ngeen jëfati ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp soñ ñëpp di ñaan sëriñ Muntaxa Samb yàggal ko fi bu baax di ñaan sëriñ Amdi Moodu Mbenda ak njabootu Cheikh Ibra Fall gi ñu yàgg fi bu baax euh, sëriñ Touba yàgg a digal kër Cheikh Ibra Cheikh Ibra yàgg koo jëf xam nañ ndigal bàyyi ko kër sëriñ Touba tàbbi kër Cheikh Ibra na ko sëriñ Touba bëggee waa kër Cheikh Ibra Fall danañu ko ni defee kon mboolem ku yaakaar Cheikh Ibra rek ñoo ngi lay soññ ñu fas yéenee góorgóorlu bu baax a baax jërë ngeen jëfati euh, parce que liggéey bi nag ñun taalibe yëpp ñoo ko bokk kon nag noo ngi soññ ñëpp di di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nañ ci am ngërëm lañ Tuuba ak Cheikh Ibra a jërë ngeen jëfat jërëjëf yàggal ko fi baax ndax lii itam nag waxtu waxtu gi yàlla ab pëseemu ak taxawaayam ak fas yéene liggéey sëñ bi rek moom lañ ko defee que sëñ Bassirou nag moom moo fi nekk di sëñ Bassirou liggéey boobee nag ñoo ngi fas yéene rek ñu ànd ko bu baax a baax te lépp ko rafet bu baax jërë ngeen jëfat